ngir am xol bu set nag fokk ñu fóot ko fóot ko ci ay taq-taq ndax suñu borom dafa wax yonte bi ci alxuraan ne ko yaa fa andir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahhir borom xam-xam wax ne siyaaba ko ñu xal bu lañ jublu mooy setal sa xol kon xol mu ne ko ñàkk setal nag mu am ay yoon yu ñuy jaar ngir setal xol ba ci jëkk mooy bari looy tuub tuub di dellu ci tuub bu ñu ko waxee mooy tuub dellu lay teg Sëriñ Tuubaa daan def yiisaa mu dajale mbooloo julleeg ñoom ñaari rakka ni leen na ngeen ci yéene tuub kon tuub bu ñu ko waxee dellu ci yàlla lay tekki mën naa doon julli ñaari rakka mën naa doon jàng alxuraan mën naa doon jàng xasida mën naa doon toog di julli ci yonent bi sama bari waaye tuub dellu ci yàlla lay tekki kon bari looy dellu ci yàlla bokk na ci li ñuy fóote ab xol bu jàllee bari looy jéggalu yàlla istixfaar mooy sàkku yàlla mu faral la bàkkaar yi nga def bokk na ci li ñuy fóote ab xol ba tey boo jekkee ba guddi donte dangay ngay jàpp julli ñaari raakaas loolu bokk na ci liy seetal ab xol yenn bi sansom dafa wax ni dafa wax ni nit ki bu nelawee seytaane day ñëw ci aw loos mi pas ñetti pas yoo xam ni pas-pas bu ci ne da ciy tefli ko nam alayka laylun tawila bu gi yàgg na nelawal ba mu ñetti pas-pas mun nag nit ki bu yeewoo tudd yàlla benn pas bi day fecc bu demee jàpp benn pas-pasu ñaareel bi fecc ko bu kàbbaree julli ñaar rakka nag ñetti pas yëpp yépp fecc bu xëyee day xëyee xol bu neex akuk cawarte daal ni waaye bu ko defut nag pas-pas yooyu seetaan façon ci tax na bu yeewoo tuddul yàlla بين بين لو خيتات مباجم رك دادي كون نيت نلاو وخي اك تايل لي خيالي اك نخر دير تي لول كوكو خول غيس كوكو خول سي سبب دانكو دانكو سيو يان يان سان سان مكو واخ واي موك مير بي غي جاخار ني بوكو لامبو دي بلاج نيت كي سابو ييو تي غوتي كي ار بي جيك ياو تا داني واخ ني نلاو موم لي فراتي نلاو موي ديغا گامل كو غا نلاو با جيك جيك ياو تي كين ياو لول موي فراتي نلاو موي ليغا خامتاني بوكو ديفتال مولار لا لا تي دسات ليب بكان bi nga yeewoo te kenn yeewul la rek boo xëccaatee sa mbaaj loolu bakkan dafa teg des léegi waaye farata ne la jaram yonte bi nag saa bu ki yeewoo tudd yàlla benn pas day fecc ko bu jàppee pas-pasu ñaareel bi fecc ko bu julee ñaari raakaa nag pas yëpp day fecc ko bu xëyee ak cawarte ak ku neex deret lay xëy waaye bu ko defut bu xëyee ak taayal ak ku naqar deret lay xëy kon jóg ci guddi gi julli doon si ñaar raakaar bokk na ci liy fóot ab xol bari looy julli ci yonente bi noonu bari looy julli ci yonente bi sallallahu alayhi bokk na ci liy fóot ab nit ki bu bëggee wérug yaram ak wérug xol nu muy def ngir mën ko mu ni leen wérgu yaram moom di xiif xiif bu digg doomu a xiif ba ëpp bañ a boo ko defee da nga am wérgu yaram waaye wérug xol nag bari looy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo koy maye kon bari looy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafay xol bu wér bu set wecc naka noonu jàng alxuraan di ko setantal bokk na ci liy maye wérub xol naka noonu bari looy tudd yàlla sikar di sikar sikar su bari yooyu yëpp ni juróom benn mbir la yoo xamante ne daa bokk ci li ñuy fóotee ab xol ngir mu set